mbokk internet yu Dakar Buzz jërëjëf mbokk internet yu impro am nañu mbégte jàkkaarwaat ak yéen ñu ngi koy defee rek saa su ne rek bu actualité amee ñu seete ñeen ñi nga xam ne bu ñu waxee ñu déglu leen doo ci génne nag Alaaji Mbay ndax li ma naan Alaaji Mbay euh, euh, dafa marqué empreinte am ci làmp ku ne gis na nag euh, digganteem ak Ama Baldé waaye digganteem ak waa Pikine mu am lu doy waar nag ci loo xam ne ci la nekk ndax boo xoolee Alaaji Mbay xam ni tëddul di nelaw mi ngi liggéey adversaire yi war a jël am nañ problème parce que man sax man tey daf maa bett parce que tey gis naa ko muy liggéey lu métti loo xam ni ak masse bi ma ko fekkee te lépp di doole macha allah non ki jël avance Aladji mbay dana am sérieux problème. parce que Aladji Mbaye mi ñu doon gis muy fecc di fo di comédie ak bii bokkut kii dem diin di yëg diin di wàcc di soolu doy waar. parce que maa ngi liggéey jarte wax le fait que nga sumee rek ñu bett la xam ne yaa ngi liggéey tey ñu war a partagé moom ci lu bari nag tey maa ngi ci mi duñ Diouf ak Seydou Aladji nuyu naa la. naa la ñu ngi lay fay di la ñaanal jàmm di ko ñaanal Aladji Medoune di ko ñaanal équipe bu Dakar Buzz yëpp. waaw di sant yàlla di julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di sant sunu sëriñ sëñ Aziz Abo Mbacke. yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg ñoo taxawoo ndax moo ñu dimbali. di sant ajaratu Maram Mbodj di ñaanal sunuy waajur yu baax a baax a baax di ñaanal sama papa yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu fekkee ci man dara. di ñaanal sama yaay yàlla ko yàlla xaare àjjana di ñaanal samay maam di ñaanal àdduna yëpp. alaaji nit ñi est-ce que xam nañ fi ñu àndee ma yow dama dafa yàgg de ah, sa yaay bëggoon ma nekkoon suma xarit nekkoon ginnaaw raay ndeysaan nekkoon yaay social. waa yow foofu laa la xàmmee. nit ñi mën nañoo jàpp ne rek ni ci làmb ji laa la xamee ne ma yow booba lii lépp amul. waaw non yow man yow dañoo yàgg. yow man yow dañoo yàgg parce que man dama doon jugee fii koñ Falaay ci sama maam di dem di seet sama yaay ginnaaw raay sama yaay falaa ko doon fekk. ana seex ñu ngi fa. waaw falaa falaa falaa doon fekk sama yaay farma sëñ Fallou waaw yow nga nekk nit ku baax xam nga yàgg def social moo tax bi ma gisee ngay def ay social ci malaat yeeg ci hôpital yeeg xam nga bettu ma parce que loolu ma dama nekk xale bu ndaw di la gis nga koy def. waaw alaaji mu mel ne gaynde met la fanaanoo dañ la fekk ci état boo xam ne bariwul luñ koy gis ci alaaji mbay lan la dafa am ci loo dugg wala dafa am lu la promoteur dikk wala dafa mer. waaw non kenn dégguma dara sax pour l'instant nag wax dëgg yàlla mais làmb dafa nekk loo xamante nii ak àdduna sax sport da cee baax quoi surtout làmb waaw mu nekk loo xamante ne ni euh, ñun sunu passion la bëgg nañ ko xëy na débuté nañ ci débuté bu neex ñëw ba ci biir am ay dooraan ay faxastal ak ay tali yu xar mais yooyu yëpp ça se rattrape incha allah parce que le fait que nga nekk ci entraînement yi rek après da ngay trouver waat sa yoon quoi incha allah. d'accord mais prochain adversaire El Hadj Mbaye kan nga xalaat parce que actuellement état bi ma gis moom warul yàgg dara tax bu vidéo yu dugg promoteur di la woo. non dina am combat moom dina am combat waaw te mooy li ma wax rek. arène xam naa côté nit ñi di daanoo. waaw lu ci bëri comprendre naa ko. te waaw daa am côté yoo xam ne nii boo fa taxawee moom bul sonn da ngay daanu. loo def daanu. waaw côté yoo xam ne man moom dem naa arène nationale fekk kenn nekk fa ma taxaw observer côté yooyu xam ko muy côté ouest bi la nekk ouest bi côté boobu moom bul laal demal beneen côté. boo amee combat arbitre tiiraat ñu tiiraat ko nga féete foofu nooy def. waaw bu arbitre sifflé da ngay lëwatoo Eumeu Sène def na ko ci combat moog Euh, gis naa monsieur bu ñu léewtoo muy wër ab muy wër saak. Ah, waaw bu arbitre sifflé day daw bu far te fekk fi mu taxaw arrangé wu ko day daw ba ci position am taxaw fa. kon dafa am ay rawaan yu ne arène nationale. am na ay rawaan te tamit mu ngi ciy doon loo xamante ni foofu tànk mu ngi fay bëre saa bu déclenché da koy gis te saa yu da koy mën a capté. foofu sax bëgg ñu ubbee suñu waxtaan tey euh, euh, tactique bi Eumeu Sène bëree tey ñëpp yaakaaroon ni buñ sifle Sa Thiès day fital jaati koom jaxase ko buub sànni ñu gis ñu fet ñu sifle Sa Thiès taxaw di déglu Eumeu Sène encadré ko ba Sa Thiès mën ta yegsi Eumeu Sène ci ban ban ban ban façon la bëree. waaw Sa Thiès dañuy encouragé d' abord ndax làmb ji passé na te c' est le Sénégal qui gagne. xam nga di ko encouragé di ko wax ni moom ki mu doon bëreel mooy ndaanaan ki doon bëreel moo mën légitime défense ki mu doon bëreel moo mën nga koy attaqué. kim doon bëreel moo mën bëre boo xamante ni da ngeen ni sàmba yaane ngaan di waxtaan waaw fooram la ki doon bëreel dafa mën bagaar te làmb xamaguñ ko muy Eumeu Sène maanaam nga déclencher xeex boo xam ne xeexu mbedd la munoo ko cee gañe waaw parce que man li may wax ni nekkul ay télé yi ma gis ko muy bëre moo tax ma wax ko dam ko gis ba yàgg ba tàyyi mu takk gaa taxaw xeex comprendre nga gis ko boobu mook ñoom laasana boobu ñoo nekk saalu falaay ak ñoom Moussa Dioum ndam si yàlla si te Moussa Dioum ku ne xam na ni ci làmb làmb moo waxul dëgg yàlla ko yàlla yërëm mais kenn dàq koo bëri ci àdduna waaw da doon bëri di waxtaan waa mën a bëre Eumeu Sène ñooñu la doon bëree ndool xam nga ak ay baabooy Sa Thiès Eumeu Sène day am facilité pour bëreek moom parce que Sa baabooy de ba Balla Gaye 2 rek. waaw Sa Thiès. waaw nuróo nañu. waaw la boo xamante ni baa baabooy moo daq bëree Sa ci ay loxo Sa moom moo dàq bëree baabooy ci ay tànk mais ñoom ñaar kiif kiif. ñoo bokk ni ñëwee. benn mbër la ñoom ñaar. kon boo bu fekkee su Eumeu Sène daan bëreeg baa booy pour maîtriser Sa day yóbbu. waaw kay Eumeu Sène dafa yàgg bëreeg ñoo xamante nii noonu lañ mel ay attaquant lañ. lu jiitu loolu ñu gis bennoo bi pikin bennoo. mu mel ni Pikine saa bu nu àndee doon benn dëkk ñëw nañu wuti dara te duñ ko am. waaw Pikine bennoo moo jik bennoo mooy lépp àdduna sax bennoo moo fi mooy dëgg xam nga parce que am na lu bëri loo xamante ne nii euh, ànd rek moo ko mën a defar ànd nekk ci jàmm ànd entraînement ànd. yéenante jàmm ànd bëggante ànd yàlla may la mu jeex loolu rek la. Euh, li nu jaaxal mooy que ni euh, mooy que ni euh, mooy que ci biir Benno Pikine bi am na ci ay ténor yoo xam ne tey gisuñu leen Ama Baldé xelam mi ngi foon woon donte newu fii boo ñaa gis nañ ni ñëw na mais Pikine mu mel ne loolu lu soxla woon la aussi boobu. waaw Pikine bis bu loolu dañ ko soxla parce que Pikine dafa nekkoon ci ay problème problème bi waxuma ci waa Pikine yi mooy dañoo nekk ci ay dynamique yoo xam ne baaxul dañoo bëri suñu ñaari combat royal ñàkk ko. waaw kon Eumeu Sène bu ñëwoon war a bëre nag ak Sa Thiès ñun mënuñu lu dul encourager ko ak jàpp ci bu baax a baax a baax pour pikin yëkkati ko parce que ñun Pikine la ñu gëm Pikine la ñu dëkk fii nañu juddoo li nangoo la naan fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màggee fii la ñu fekk baax cosaan yi fi maam bàyyi woon ñoo dekkeel cosaani maam Pikine la ñu xam ñun. Pikine la ñu xam alaaji may lan mooy problème mu Pikine ba ñàkk benn amoon woon ba kenn ku nekk jël sa yoon kenn ku ne def sa TikTok di wax ah lan mooy problème bi. waaw problème bi du dara xam nga làmb du yëfu yàlla làmb du jàkka du du du daayira làmb affaire seytaane la daanaka comprendre nga kon foofu pour seytaane dugg fa day yomb comprendre nga léegi nag mais ñi nga xamante ne ñoo ci nekk ñooy am maturité di defar ku ci mel ne Ama Baldé boo koy indil ay wax yu ñaaw sax du la déglu ku ko xam dëgg doo ko dem di ko wax ci nit lu ñaaw Ama Baldé waxuma ku ko xamul nag quoi nii nii nii. mais ku ko xam dëgg-dëgg doo dem ci moom naan ko ama kii lii. parce que dañu gis ne ñaari mbir yi ñoom. parce que du la déglu. parce que dama yaa ngi dégg ku ci mel ni Boy Niang gis nañ gestes yu rafet yi muy def. keroog bi ñu tuddee Ama Baldé drapeau Ama nekk fi Boy Niang moo porté drapeau bi dem yóbbu ko arène nationale. ama seen keroog mook sunu poulain ñoo ànd def open press Pakola. kon c'est le nous c'est le Pikine dans Pikine yaa ngi dégg leneen li nag mooy avenir avenir nag moom kenn du ko yaakaar ci kenn. avenir bu fekkee coono rek la yàlla di fay coono la yàlla di fay ñi nekk pooro yëpp xaalis ci àdduna am na ñoo xamante ne ay saaku ceeb lañuy ñuy fanaanee yenu barke sëriñ Touba mbake nekk ci bato yi ñooñ ñooy ay jàmbaar ngay gis fii ay nit di jaay ay café di nekk ci mbedd mi ñooñ ñooy ay jàmbaar nga dem Sococim gis ay ñoo xamante ni gënoo leen ñu yenu ay saaku ciment di ko wàccee ñooñu ay jàmbaar. nga dem marché poisson waaw wërsëg moo fi am nga dem marché poisson gis der yi nekk foofu. yaa ngi dégg mais am-am yàlla mooy namm ci nit am-am bu fekkee say mbir dafa xaw a tagga tembe nga jàpp nit moo la ko teg pour nga soxor day yomb. bu fekkee da nga ànd ak nit mu jékki mu ëppale la nga jàpp li mu am yow war nga ko am kut ko kut. pour nga bon day yomb. yàlla mooy maye. am na lu bëri loo xamante ni bu ko yàlla namee ci yow. da koy def loolu kenn mënu ci dara. waaw waaw état bi la. xam nga. d'accord léegi li may déggat ci kenn itam léeg-léeg nga dox dékk nit micro mu ne la Pikine amul 100 pour amu fa dëgguwul lan la du dëgg tey loolu ñu koy wax dëkk biir Pikine. waaw léegi loolu ku koy wax rek xam nga man du ma la balaame parce que yaa taxaw position bu tax nga koy wax c'est que yow balaa ngaa génn sa kër yow doomu aadama yi bégal kontaanal quoi. waaw léegi yow boo koo jàkkaaroo da ngay jàpp dafa kontaan. mais ay ay ay problème individuel kenn du ko jël di ko def ay problème pluriel pluriel ak pluriel la tubaab bi di wax ak singulier bokkul singulier benn la pluriel mooy lu bari yow tey jii sama problème man maa yow bi ñu daje fii dañoo kafree mais sama problème am naa problème xamoo ko yow am nga problème xaw ma ko est-ce que mais du ma jël sama problème man doo ko dóor yow non non ku nekk da ngay xool ci nit ci lu rafet di gis ci moom ci lu rafet loo xool ci doomu aadama rek loolu ngay gis. d'accord loo xool ci ngay gis tey loolu doon doon bref rek parce que li ñu war a waxtaan te yaakaar naa ne du jeex am lu nu dab sànq ci yoon bi muy natt bu dal ci kaw Lac de muy loo xam ne tey bu dalee ci kawam dal na ci axlu làmb nan nga jàngatee problème bi ban téye ko. waaw loolu dama ko dégg xam nga métti lu ko tamit xam nga parce que nit warul yéene nit kaso doomu aadama bu nekk warul yéene moromam ñu koy indil benn gàllankoor mais nag am na foo xam ne boo fa tolloo ci àdduna. fooy teg sa tànk fu ne dafa war a leer nit mënul leeral boppam nit mënul assuré boppam mais am foo xam ne boo fa tolloo ci àdduna la mu ni monument la. est ay dégg fu bëri fu muy teg tànkam war na ko xool ñu bëri ñu muy jëf jëflanteel war na ko xool parce que la de bu àndeek cent personnes def délit moom lañ ciy tudd parce que moom mooy drapeau bi. waaw loolu nag bu la ko yàlla mayee c'est pas donné à tout le monde da gis yàlla dugg ci kër jël caat bi def ko noonu. yàlla yaa ngi dégg yàlla dugg ci village jël ko fa gën a ñàkk def ko noonu mu yor bayre bi yor coow li nekk monument bi kon nag noonu bu la ko yàlla defee da war a looy dugg da ko war a xoolaat quoi pour sàmm sa der bu baax baax a yàlla ko yàlla génnee ci lu mu nekk xam nga yàlla delloo ko si njabootam. leneen li ma ciy xusaat que ni tey mooy juboo Pawlish ak Wally Seck te kenn ku ne xam sa digganteeg Wally ni ngeen mel yéen ñaar boo géej géej loolu en tant que jullit sax laay wax parce que yow bëggoon ñu tàqali ko. ci kontaan. te kontaan ci parce que du surprise ci man li tax du surprise ci man mooy Waly amul kenn koo xamante ni mës nga koo def lu ñaaw te du la baal doomu aadama boobu la. Pawlish ñoo dëkk fii Pikine ñoo juddandoo yarandoo fii Pikine comprendre nga man dama doon jàpp loxo Pawlish di ko yóbbu kër Waly man. waaw. dama doon yëgal Pawlish sama steur di ko yóbbu kër Waly. loolu de mosuma koo xam. barke Cheikh xam nañ loolu. loolu sax kenn xamu ko. xëy na wax moo jot loolu noonu pour ma wax ko rek. yow bokk nga ci jàpp loxo ko kër waali. dama doon jàpp loxo police laa wax yóbbu ko bundu kër waali ne ko dugal fii mooy kër waali man abaa di jaay abaa abaa abaa abaa yor bitik di jaay ay yére. fële ci Ouest Foire comprendre nga. waaw te waali li mu dund ak police ñu bëri dund ko ak ñoom. teraanga gi mu jëflante ak police ñu bëri jëflante wu ko ñoom parce que dafa am ñeewante bu mag digganteem ak police. Wally yóbbu na Pawlish itali sax Pawlish euh, dem ba Italie Wally nekk fii soirée bi bu të buy tëgg penc mi Pawlish lay woy ba suwaare bi jeex loolu mbëggeel la te boobu te boobu yóbbu na ko Pawlish nekku fi comprendre nga. Wally nag nekk koo xamante ni nii euh, ñun dañ koy ñaanal parce que Sénégal cadeau pour ñun waaw pour ñun faral dama ne la ñetti boo amul fit doo ko def sangu seddaay ak maye. fit a koy def. ak xeex waa lu mu yor joxe ko bërki démb ay ver or la may sama jabar. yow mi waaw fii lañ daje ci arène nationale bi soirée Fallou Ndiaye bi. Benjamin ma koy nuyu au passage di ko félicité veer yi mu takkoon mu nekk ver en or da ko tekki takkal ko sama jabar. barke Serigne Bamba. dafa yéwén. waaw te loolu lépp ku xam waale xam ni nitu valeur la moom loolu la xam. partagé ak joxe xéewalam ak bëgg lépp di rafet ba pare nekk jàmbaar nekk bañkat am fit lool nekk gaynde mais koo xam ni am nee na waali c'est waali yaayam ne ko demal di nga xam ni yàlla moo la gën a baax kon kooku mënoo ludul yéene ko jàmm ak seetaan ko fi mu jëm ak sénégalais du fii comprendre nga. li koy firndeel mooy daaw maag Medoune daf na woo jox nu xar te ñaanu na ko xaru tabaski daaw maag Medoune mi noonu la mel jox ma ne ma Fadel am nga fi xar Medoune am nga fi xar mais Papa Thione da ko wax Papa Thione daf ne ballaago ballaago si biir Ramadan ballaago war ngaa mën a daan booy def kulo la romb nga ne du waaji waaji romb la waali mooy waaji kon kuy waaji waali kon ñi nga xam ne ñu ngi bi waale amee problème ak ak ki nga xam ne moom mooy police ma gis sorties yu bëri ñenn ñu bëri def ko guerre bëgg koo guerree lan la lan lan lan la ñuy tax seen taxawaay tey lan la. non du guerre papa ak doom la. non dama ne bi waale amee problème ak mba ak ak ak police ñenn ñi def ci ay sorties kenn ku nekk bëgg jël problème bi def ko en mai tey waale juboon ak police est-ce que ñooñu dinañ mën a nekk dama ne la xam nga leader di nga soxla conseil mais doo demee ay idée jàmbur. waalo du nit boo xamante ni day demee ay idée jàmbur ay idéem lay demee. li ko arrangé lay def ok non du li ko arrangé li nekk ci xolam li ko neex moom. lool lay def parce que xolam moom du jàpp lu naqari lu neex rek lay jàpp. xolam mooy nga tooñ ko mu baal la nga ñaan ko mu may la yaa ngi dégg nga soxla mu lijjanti ko jox la fordu ngay dawal loo for def ci loolu la séq ak gars yi. mbaa xam nga ne dafa mel ni kon am ñu bëri yoo xam ne jubóo Pawlish ak waale arrangé wu leen. waaw mais showbiz moo am loolu. Euh, faral kër goo dem wala entreprise boo dem di nga gis ñoo xamante ne nii ay frustration day am loolu am na kër yëpp mais leader bi ci kaw mooy gérer parce que entreprise benn patron lay am Ramdan Faramaren benn patron la am muy Mariasine muy sa biige muy sa biige maaram Waly Seck mooy patron bi comme que nag entreprise benn patron lay am moo koy diriger moom mooy diriger foofu ku fa xuloo mu juboole la ku mer mu neexal la ku mu war a wax dëgg wax la ko li mu war a def def ko te muy yoon amul leneen. boo amoon looy dolli police ci diggante ba waaye lan lay doon. mooy mu gérer nit ku baax kenn du ko caaxaanee nit ku baax kenn du ko caaxaanee surtout ku mel ni Waly koo xamante ni bu gisee téeméeri nit yow bu la gisee yow ngay ay nitam dalay dalay yëkkati ca kaw man Waly bi mu taxawee fii arène euh, stade syndicat naan ma Alaaji Mbay man maa la bëgg te ragalu ma ci dara ay milliardaire rek a fa nekkoon. barke Serigne Touba ñi fa nekkoon maa ci gën a banque te nekkul koo xamante ni barke Serigne Touba Mbacke am na leen lu ko dépassé dara jaaxalu ko. fekk na ma ba Gambie wooy ma fa man mais ci Dakar bu social. dafa mën a yëkkati nitam noonu la mel waali dalay fekk nga nekk ci maamu tegal la esel foofu la nekk ak doomu aadama yi. tey boo amoon tam looy dolli waale ci diggante ak police ndax bari na tam lu police yi def sotti di wax waxul intérêt boppam intérêt waale lay wax lan la mu mu téye police xam ne tam ku bëgg la. bëgg na Pawlish trop. waaw bëgg na Waly. Pawlish bëgg na Waly trop déggoo ma ni koo bëggul doo ko fekk këram. di ko seeti déggoo man la man maa yabee Pawlish bese yaawoo yóbbu ko ba buntu kër Waly abaa di jaay noonu yor shop di jaay ay yére man nuyonteeg abaa waxtaan ak moom ne Pawlish fi may kër Waly man dund naa loolu ak Pawlish bi Waly dëkk Ouest Foire ci ginnaaw comprendre nga waaw mais Waly nit ku baax la xëy na man dañ mën man mën naa toog six mois duñ gisante. barke Cheikhul Khadim mais xam naa daf maa que fu ñu daje moon ma ko. waaw parce ku fekk ay verre or takkal ko sa soxna. dama ne la fa la bëggal yàlla dama ne la xam naa daf maa bëgg parce que fu ñu dajee mu won ma ko. damay toog 6 mois du ma ko gis maa raw fan sam yi nekk Côte xam nga ñooñu dañ koy namm noonu laa koy nammee comme ñooñu dañ koy nammee comprendre nga. waaw mais nit la boo xamante ni yow boo taxawee en distance xam ni ku baax la parce que fii nit lu mu fi ut rek ngërëm waajur la yut ki nga xamante ne papaam dañ ko ne loo xam ci waali mu ne waali se waali te ku ne xam ne papa coon dëgg ko dëgg ko ray yaa ngi dégg waali sa waali yaayam jooy ne ko da ngay jaay baax demal di nga xam ne yàllaa la gën a baax waaw man su ma déggee yooyu ci doomu aadama man damay jéem a damay xam ne yow mii kenn mënu la arrêté de yaa ngi sa yoon de. te ngërëmal waajur passeport diplomatique. non mooy du day caaxaan. aéroport bu la neex wàcc. du caaxaan. lu caaxaan yàlla ko yàlla lafal cat yàlla eggali carrière am ci jàmm. combat taxaw nag Papa Boy Djiné Tapha Gueye numéro 2 boobu komba bi nga ko déggee yow tey noo ko jàngatee. waa combat bu neex la. combat bu neex la ñaari jinne Tapha Gueye 2 ca song ma Tapha Gueye 2 ca arrière ba Tapha Gueye 2 ca latéral gos ba ca latéral droit ba ca milieu ba Papa Boy Djiné ca avancé ba ca xeex ba ca bagaar ba. waaye nag dinaa leen wax dara de. wax yéen ñaar ku ci daanu arbitre bi ngay bëreel de ku ci daanu jàppal ni CNG ngay bëreel arbitre yi ndax làmb mbër amatu fi. mais lu tax mbëri fi nekk ku daanu bëri ak ñoom. non papa papa bu dee combat boobu taxaw na man papa da papa dama ne la bu dee combat boobu taxaw na mooy dernière chance am ci làmb. lu loolu. waaw parce que duñ ko ko pardonné. su mënta daan tafaagee numéro 2. non kenn du ko pardonné loolu. dafa ku ci daanu kan ngay bëna bëri. ku ci ku ci adversaire ci laam. ku ci daanu arbitre ngay bëreel. Sitor wala Malick wala Malick Ngom. ku ci daanu Sitor ngay bëreel boo daanee Sitor jël Malick maa la loolu. waaw mais làmb ju neex la Sénégal dinañ ko bëgg parce que làmb la joo xamante ni day dundal làmb. looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo dara lu dul gërëm leen. xam nga kontaan ci yeen gërëm àdduna yëpp. di wax ni xam nga euh, di wax ni àdduna xam nga kaf ak foo ak ree moo fi am. dangaa tàggatoo sama jinne deyaat nañ ma dara. ken jëm ci combat capital yéen it. xam ngeen ni combat bi ngeen jub ak lu ma naan waroo leen cee daanu. waaw mais làmb làmb bu tegoo ci logique rek nekk ci yoon ci Ama Baldé la fekk baax. xam nga ne Ama Baldé bi muy daan ay bi muy bi muy daan ay magam be kenn daanul kenn daanul bi muy yéeg ci kaw di daan gaa yi kenn benn moroom yéegul ci kaw daan gaa d' accord mais dafa ne ci combat boo xam ne dafa am lu mu amee waa Pikine am lum leen tàmmaloon mu jël combat boo xam ne Gris Bordeaux gis nañ ko ci entraînement yi ni bëgg na combat bi mbaa xam nga ni combat bi fi mu mën a yóbbu Ama Baldé. waaye fi mu ko mën a yóbbu làmb xam na ko fi mu ko a yóbbu Ama Baldé ci xam na ko moo tax mu nekk ci li mu war a nekk. ban Ama lañ war a gis. waaw di ngeen gis Ama bu garaaw di ngeen gis làmb pur et dur parce que Ama combat bu mu fonk la te nit ku ragal gàcce la. nit ku bañ defet la. am ay bañ waaw nit ku am ay principe la. làmb nag yàlla moo fi nekk dernière décision bi yàlla moo ko yor. blessure bi ñu doon dégg ci moom am nag amul fan ngeen ci toll wér na wala wér amul woon. blessure laa bëggatul ku may dékk micro sax di ma ko wax. lu tax loolu. arrangé wu ma ama lépp jàmm yàlla ko yàlla fal cat ba làmb yàlla sunu borom may ko ndam ci kaw gi di bëri doo parce que Ama dafa bokk ci mbir yi nga xam ne bu yëngoo Pikine yëngu. te Pikine nam na Ama Baldé yëngu waaye xaar gi di bëri doo ci ñaari Cheikh Gris Bordeaux ñu ne ma yéen gis Gris Bordeaux bu bees tax niwul waaw ku ci ne da nga koy défendre ñoom wax nañ dëgg mais comme que ñoom ñoo mën a am cinquante ans di di niwlu gën ñun ñu am douze ans et demi loolu. Gris Bordeaux cinquante ans waaw ma ni seex yi nga wax. seex waaw waaw segam ñoo mën a am cinquante ans di niwlu gën ñun ñi nga xam ne bëriwul. waaw mais ñoom ñoo waxal Gris Bordeaux. waaw ndaxte Gris Bordeaux niwlu bu bees tàq bu daj. waa comme Ama nag moom mi nga xam ne mooy nàmp. bu fekkee lu bees rek fala fekk baax ci Ama. Reug Reug Ama Baldé bu nga ci jógee yaa ngi coowaat combat boobu tam de. waaw làmb la ama ñooñu ñooy moromam ñooñu la war a bëreel. xam ngeen Reug Reug. ñooñu ñooy ay ay moromam ñooñu la war a bëreel xama waaw buñ ci eggee ci la xam ama dëggantaan nag. mook booy ñaan di bokkat adversaire foofu mbaa du indi benn ñagas-ñagas. loolu du indi benn ñagas-ñagas loolu ci la njëkk wax. loolu Pikine ci la njëkk wax booy ñaan nee na alaaji damay bëre jox ama ama bëre jox ma loolu jeexal na wax. loolu yéenay ñëw rek di fi indi ay wax di kii. waaw dama ne la. booy ñaa nee na day bëre jox ama wala ama bëre jox ko ama ne ma alaaji ma ne ko ama ne booy ñaa semoon na mi ku baax la booy ñaa ne ma alaaji ama sama xarit la. kon lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo bëgg a dox ci diggante ñu xam ne ñoom ñaar ay ñu xam ne nag ñaari mbër yooyu noonu mbëru pikin yëpp ñoo bokk ndey ak baay waaw ñu defar rek te yàlla tax te xam ne lii yàggul ama du bëriwaat 15 ans booy ñaa du bëriwaat 15 ans carrière yi jeex na ba pare nañ ko naay sal àdduna mu solo. te ñoom ñaar sax bokk nañ ay jikko yoo xam ne kenn du leen dégg ñu détail. non c'est des champions c'est des champions ñu ngi seen entraînement nekk ci li ñu war a nekk. seen wax bariwul. waaw ku ci xam nga ku ci ku ci am ndam ndam ndam ndam ndam li ndam ndamu Pikine la. waaw loolu rek mooy mooy mooy avenir bi quoi. ñu ngi may signaler waat ci Papa Boy Djiné Tapha Gueye de nga ne ko nga def combat bi ku ci daanu. combat boobu ku ci daanu arbitre di ngay bëril mooy seen dernière chance loolu kay leer na waaw ku ci daanu kay arbitre di ngay bëril waa CNG. Sitor ngay jël wala Malick Ngom. Malick Ngom nga jël boo paree jël Sitor maa la wax loolu. yow nag kan nga xalaat ni mooy sa adversaire ma tëjee waale waaw man du ma subile kenn parce que Baye Ndiaye ci tooñ ma la dëkk Baye Ndiaye. ci nan la la tooñee. waaw Baye daf naa ma tey suba naa jox avance ba suba si xam nga. pourtant sa digganteeg wuli comme bu bu neex na. wuli daan naa ko may ko revanche. loolu mën naa ne garaawul mais dama ne la waaw Baye Ndiaye mu may tooñ. waaw te Baye Ndiaye dama am droit ci moom. c'est mon ami danoo yàgg waaw mais mu ngi may tooñ parce que mu may faussé mu ngi faussé samay rendez te loolu baaxul. am na combat bu nu may dee sa diggante Djily Mbaye bu Fass. waaw làmb la làmb làmb yëpp neex. loolu de moom njar lu nit ñuy coow rek mën naa ne. loolu njar ndéem la Alaaji lu ñuy coow ñaari kéwél lu ñuy lu ñuy coow rek mën naa ne. Alaaji Mbaye Dogo Djily Mbaye bu Fass. waaw Djily daal toog ci naqar woo xam ne fi nii damay ragal est di ko attan. non dafa manqué dafa perdre repère fi di lëwatoo di tourné. daa perdre repère de Jil <laughs> daa perdre repère ak sëñ Bamba. li mu daa perdre repère. Ah, pour jël ko. Jili kay faa ñu es es eskeneer ko mise à jour ko. billaay walaay. Eh, baax na gërëm naa la. waaw di la sant tons. waaw di la bëggee di la ñaanal tamit. parce que li gën a liggéey bi gën a difficile Sénégal pour man yow yaa koy def. waaw mooy di gëstu di xool ñi nga xamante ne mënuñ seen bopp dara ngay dem di leen soutenir. waaw pour man loolu moo gën a difficile ci àdduna te yow yaa ngi ci bay sawaar di ci def li nga war a def man mii dam lay booleeg ay malaat te doo te doo tayal da nga may wax xaaral ma dem jëli ko man la toos demal waaw demal nga jàppale kii demal nga jàppale kii te musuma la woo mu def une minute te jëloo comprendre nga waaw kon loolu nit bu koy def dañ koy ñaanal xam nga yàlla na sa bi di am essence ngay wér xam nga say projet yàlla sottil ko xam nga. et puis bëgg naa bëgg naa 4-4 nag bi daa suufee de. non loolu naa ko wax waale incha allah xam nga bëgg naa 4-4 ndax fi ma bëgg dem ci àll bi 4-4 maa raadu. dinaa ko wax waale dinaa ko wax waale dinaa ko wax waale ñu lay dégg loo koy wax. waaw waali euh, Fadel il faut. waaw social bi waxal mu lekk waxal wax jëlee. Fadel faa moom 4-4 waali. waaw loolu mënut a ñàkk waaw. am ben problème no dégg na ko mariage bi mooy sa biig mooy sa biig maar eh. kooku c'est na mi lu ma wax koy dégg. Eh. daa baax. maa ngi xaar sama appel. di gërëm Ousmane Thiam Dogo bu baax di ko ñaanal waaw parce que Fadel àdduna recherche la nit ku baax boo ko amee rek da nga koy téye nit ku baax la Ousmane Thiam maa ngi koy ñaanal di ko ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal Thier di ñaanal Alaaj Thiam di ñaanal Thiacho. Alaaj balaa ngaa ñaan am na lu ñëw sama xel lu ma fàtte dama gis benn interview bu benn Mara def ne am na koy ànd ak Ama Balde ku saf xorom koo xam ne am na tànk bu muy jàmbat te man mi la jege xam naa ni. loolu mu wax bu lépp nekku ci yow it am na lu ci nekk ci yow ndax sa tànk bi nee nga dey sàdd di neewi bi nga déggee interview kooku tiitoo man dama bëggoon sax woo ko ci biir émission bi laaj ko daa gëstu ko wala daa ñu wan ko ko wala lan la la tiital parce que dem na ba tudd ci Gilles Balde Junior suma xarit ba yàlla na ko yàlla yërëm ne li ko yóbbu te loolu nag daa cax mais liñ laat yàlla buñ ci am tey bi nga déggee loolu. waaw man dañ ma envoyé lien bi. laaj sa yaram wàcceeg sumeeku na. dañ ma envoyé lien bi man parce man yooyu du ma ko bëgg di wax ci émission quoi mais eh, comme nga laaj nga man naa la wax dañ ma envoyé lien bi ma seetaan ko dégg benn maara di wax te effectivement sama tànk man sama tànk yi day sadd quoi day sadd di néew yi nii tuuti mais après su ma demee sport wala dara mën na reesaat yooyu comprendre nga yenn saay mu diis yenn saa yi guddi gi day tàng jër comprendre nga léegi loolu ñëpp ñi nga xamante ne nii jege nan ma xam nañ ko ci man comprendre nga xam nga ma koy ñaan rek moom tamit bu fekkee loolu mën na ci dara ma jël numéro am dem ci moom jàppale ma ci. dafa woo woo ko déggante ko. non tey ñoo gisandoo lien bi maa yow. waaw ñoo ko gisandoo parce que moo ko gis woon la ko. comprendre nga. loolu dafa mel ne ci ban combat bi passé ci nga sentir loolu il pare que maa ngi am lu ma doon dégg xaw ma dëgg la am du dëgg. mas ngaa bëre ba bàyyi ñu sàcc say daal. waa bi ma bëree wulli ba pare. waaw maa wulli bi ñu bëree ba pare. Euh, stade Iba Mar Diop. bi may ñëw bi ma bi ma paree samay daal gisuma ko. daal li nga soloon bi nga dem ci làmb ji gisoo. waaw samay tërënig yi ma soloon tërënig yu bula yi ma yóbboon laa ma ja wallaahi al azim billaahi wallaahi ci télé laa nekk gisuma ko. ñaari yëpp doon benn pat. ñaari daal yëpp tànku ne laa duggee si bi ñibbi si parce que bi may bëre wuli damaa yàqamti combat bi parce que li tax ma yàqamti combat sama benn grand bu feebaroon ñu ko ñu ko xam dëgg allo Mamadou Ngom da doon def da doon def dialyse. te kooku bi mu feebaree daf ma doon wax naa ma alaaji ma ne ko ah mu ne ma burul samay doom ak sama jabar yow laa gën a bëgg ci àdduna. daf ma doon wax loolu kooku pikin la dëkk waa pikin ñu ngi fi di ma dégg daf ma doon woo ne ma suba damay def rendez-vous génnal nga uti 43000 temps yii Jalis 43000 la woon. waa science Jalis waaw. ma daw guddi gi ma indil ko ko bu xëyee dem en face hôpital Fann fa la ko doon defee. waa fa la ko doon defee kom comprendre nga. jour boobu may bëreeg wulli mu ne moom day ñëw ci làmb ma ne ko non comme que yow da nga feebar bul ñëw. bi ma nekkee ci biir géew bi di eso ak yooyu ma gis ko kaw tribune. moom mi jalis waaw moom mi feebar. ma gis ko kaw tribune mu ne ma gaawal gaawal gaawalal làmb ji. barke Cheikhul Khadim looloo tax bi arbitre sifflé ma ne wuli waaw que la ci yow bi nga gisee waaw waaw bi arbitre sifflé damaa daw attaqué ko dóoranteeg moom. Mm, waaw teg moom faax ko mu daw tafa sama wet. ma mu buddi ma nii ma ma roof ko galgal dox trois pas yaa ngi dégg pied app bi ñëw ma roof ko ca mu toog. ci moom laa jubali. bi ma jubalee ci moom ànd ak moom génnee ko jëlal ko taxi doo ko duggaat ci biir làmb ji doo ko zibilé sama victoire. ci diggante boobu lañ jël seen. waaw ci diggante boobu bi ma ñëwee nag man samay laal gisuma ko wallaahi laazim. noonu la nag erreur staff bi nga bàyyi woon ci cumukaay bi la parce que ñoom bu dee bëre ñoom ñoo war a sàmm ay bagages am. waaw non loolu réer rek man réer rek laa ko jàppee ah réer rek laa ko jàppee xam nga parce que àdduna moom doo jël dara di wax lii la wala lii man dama firi. man sama life dara mën na ma daal sax nekk sama biir may kaf ba mu ba mu dem ba wér comprendre nga. waaw parce que man du ma du ma nit boobu man du ma nit buy téye wala may jàpp wala ma naan nii la demee wala nii comprendre nga. mais lan ngay wax ki sàcc daal yi mi ngi lay seetaan te xam ne moo sàccee daal. non sëriñ bi daf ne moom. ki génn ci net bi daf ne kii nekk ci man di def si man. ba léegi moom mu ngi def. comprendre nga may ñaan kii def loolu bu fekkee moom sëriñ bi li mu ko waxee noonu la demee na ma dimbali mu baal ma. ah tooñoo ko de. waaw na ma baal na ma baal rek. parce que man moom ay tànk yuy sadd ak di néeweeg est-ce ay dégg ay dox di miir ak ay daanu man yooyu talaguma ko quoi vraiment na ma baal mën na am tamit lim ma jàppal ba def ma loolu mën na bañ a nekk man sax mën na ma jaawale mën na ma jaawale loolu lépp mën na am na ma baal keneen ku xam ne tamit mën na maa faj pour sama tàng yi ni muy saddee noonu di tàng guddi gi saa ku ko ci mën dara na ma dimbali fu mu nekk ci àdduna ma fekk ko fa mu jàppale ma te yàlla tax. yàlla yàlla muccal. waaw di taw kenn. waaw non ñëpp am jàmm man loolu laa gëm. ba ci biir ëtt bi ma juddoo ma yaroo man loolu laa fay incarné parce que loolu moo nekk ci man man leneen lu dul loolu nekkul ci man du ay télé moo tax ma koy dund du ay rajo c'est parce que loolu moo nekk ci man comprendre nga di gërëm ñëpp di ñaanal Thio maa doon wax sànq di ñaanal Madiara Thiam sama grand xam nga di ñaanal Ousmane Thiam di ñaanal gauche droite di ñaanal gauche droite bu baax borom kër dafax mel du service. kooku maa ko xam kooku xalifa la bokkal benn ndey ak Alaaji Mbay. maa la wax loolu. suma xarit la maa moom ca Sànnaga la woon. waaw maa la wax loolo droite waaw maa la wax loolu. xam nga di ñaanal Sénégal gépp di ñaanal gauche di ñaanal Xadafi bu baax a baax a baax di ñaanal Muxaasi borom États-Unis bis bu ji li mbay jëlee sa combat doon ko defati. la ilaaha illallah. kii teemaat daw ko. <laughs>